waaw bu ñu ñëwee euh, am nañ quatre heures de temps yi xam récupéré nañ ko coach yi nañ ko ñu dalu bu ñu yeewoo si la euh, ñu reprendre at euh, def science bi quoi boo gisee xool xam ne lu ndaw la quoi nekkul lu métti. waaw fii moom ça va quoi terrain bi baax na ni ñu ko gisee état bi baax na naaj bee ngi nii bi xam kon duru ñoo si def demee xam naa entraînement yi commencé xëyee. voilà waaw dina ci baax tuuti xaw a sori tuuti nit yi xam nga pour mën a concentré wu bu baax parce que boo xoolee ci côté montagne bi nii même en Europe noonu la quoi pour mën a concentré wu bu baax daal. loolu def loolu kontaan si rek parce que tamit mooy sama première fois ma dugg parler en tant que sénégalais kon ma def loolu content si quoi vraiment loolu affaire boo xamante ne la dina des si man xam nga waaw kon euh, foofu jóge nañ fa ñëw fii mu am lu ñu sas. ak euh, Sénégal bi yëpp kon euh, yàlla bu yàlla tas yaakaar daal